sama karan de mo lo ko pour moy leer barke alcorane karim ci dal ko parce que je suis pas fier d'être sénégalais aujourd'hui billahi wal kitab politique ak neug sarax yaakar na ñoo and yag na fi lolu jitu na suñu juddu depuis la nuit des temps euh, dañuy faté ni tamit président de la république il est dans la politique mom tamit da fay politique da fay yor euh, parti diko doxal yor son pouvoir aussi diko défendre yow ñun foole nañ na baal suñu réew léegi nag lenn mooy wax ji gaa baal réew mi gaa yëpp loolu lañ bëgg jeunesse bi sonn nañ barke Seydina Mohamed jeunesse maanaam système bi moo war a dañ parce que gaa yi nekk si réew mi yoo xam na lu circonstance yëpp am si réew mi li laay war a suuli nag sa six mois yi ñun benn xoolal six heures de temps sax bëggatuñ ko waxuma la ak mois ñun ñoo doyal ci yow quoi li laay war a suuli nga génn par la grande porte dem jeexal na war na dem mu bàyyi réew mi mu bàyyi ak ñeneen gérer ko quoi kooku moom def na lu mu war a def ba pare toog na lu mu war a toog ba pare dafa wara dem baye rew mi mu baña jël ay yene genre décision yi nii. Eh, pap la tudd sant Diop. en 2012 mom mo ñëk wax ni mom mu lay reporter lu ne bamu def élection présidentielle mais mom mom la def tay légui nak mais kenn ko ne jël sa responsabilité kessé mais mom moko wax. mu nané ne violation ndax élection so démé ba diko reporter day fekk si candidat yi kenn gañu lool moy tax ñu mëna reporter élection yi. ñaan la transparence liberté mo amatu ci élection yi ndax xañ nga ni sélection nga def dugal ñi bay ñi waaw di la euh, sant sëriñ bi bon noonu ni ma ko gisee mooy comme li nga wax léegi-léegi rek violage violation bi man pour naa mun naa ne am na violation ndax élection soo demee ba di ko reporter day fekk si candidat yi kenn gaañoo loolu mooy tax ñu mën a reporter élection yi mais man li ma gis-gis sama gis-gis si président Macky Sall li muy reporter élection yi lu jaar yoon la parce que li tax ma ne lu jaar yoon la parce que soo xoolee amul benn candidat ba nga xamante nii moom moo tolloog moom niveau ndax président doon président nekkul lu yomb foo nga am ay critères ya nga xamante ni sa CV da koy am. man la Assane Ba tudd. waaw nekk militant de Pastef. waaw euh, affaire rapport élection yi Macky la def noo yem. Macky Sall respecté wu population sénégalaise respecté wu leen. comment être ñu jàpp élection ba des mois de vingt quatre heures ñu commencé campagne nga jékki-jékki naan da ngay xam nga reporté sax ñu xam ne ban heure ban ban date lañ koy def wala daal mais da koo annulé dootul am. man na fee toogaat ba heure bu ko neex mu naan day organiser élection Macky Sall def noo yàpp lii nag ñun sénégalais ñoo ci war a jóg parce que lii Sonko bi mu koy wax au début nit ñi dañ ko jàppoon dafa violent dafa dara mais Sonko dafa xam waa ji. ndeysaan même si yàlla Sidi Lamine waxoon nañu lépp nee nañu Macky Sall carte du ko fi jëlee xeexam moom rapport de force la xam. ñëpp sénégalais yëpp tey teg nañ ci seen bët. Pape laa tudd sant Diop. en 2012 moom moo njëkk wax ni moom mun nañ reporter lu ne moom moom la def tey léegi nag. mais kenn ku ne jël sa responsabilité oh. kese mais moom moo ko ah, a en 2012. non élection moom nañ ko def ku gagné gagné ni ñi am seen jàmm ñun am nañ beneen affaire bu ñu tal bu dul ay élection on a xam am nañ leneen lu ñu tal waaw. waaw dëkk bi lu ñu fa war a di jënd si affaire de. Mhm. waaw ñu bëri ñu fii di wëndeelu te waruñu wëndeelu si dëkk bi. waaw ñu ñu war a jàpp ñu si dëkk bi di wëndeelu defu leen dara. waa xëy na nag daa am deux Sénégal fekkee dafa am deux Sénégal nag ñu xam ko. Sénégal boo xam ne ñu amul doole ñu yóbbu leen kaso ñu am doole def leen neex. opposition bi opposition bi réeroowul ak président Macky Sall mais opposition bi li président Macky Sall renvoyé élection yi loolu moo leen arrangé. barke alxuraanu karim. billaay wallaay wal kitaabi. loolu laa gis parce que Macky Sall PDS la juddoo. maa ngi PDS yaroo PDS. bi kan la PDS la. mooy opposition bi. te opposition bi li président Macky Sall def da leen arrangé. ci report élection yi bon jàpp naa ne pour la bonne marché du pays c'est une bonne chose dëgg yàlla parce que buñ ko seetee seetaat ko fi mu ko teg moom mii jiitu réew mi yaakaar naa ne warul mun a juum bu ndax euh, bu ñu xoolee rek moom nee na bokkatul bàyyi na bu yàgg kon. jàpp naa ne organiser élection yu leer te transparent moo waral report man sama impression loolu la par rapport ak euh, report bi. di wax ni sénégalais yi maanaam lii dañoo war a jóg parce que jóg jot na gis nañu lépp luy daw si réew mi neexul quoi waxu dëgg yàlla Macky Sall moom réew mi at adduna bi yàllaa ko moom Sénégal yàllaa ko moom xam nga jeunesse yaa ngi yoon fi ngeen fi ngeen ñi fekk ay moto ngeen fi fekk. Mm. gars yi dañoo bàyyi seen diplôme bàyyi lépp nekk si càq bi ndax réew mu métti. yaa ngi comprendre loolu dafa métti waaye ku génn sa kër yaa ngi nekk si talib di ko jaayante keneen ak keneen yaa ngi comprendre ñun bañu mu doon na président mais la mooy la mooy wax ci deful wareefam. donc euh, man nag du ma opposition ci ci nguur gi laa faral mais wax dëgg yàlla décision bu génni fan yi nii kontaanu ma si waaw parce que ñun euh, mooy suñu leader dem na jeexal na war na dem mu bàyyi réew mi mu bàyyi ak ñeneen gérer ko quoi kooku moom def na lu mu war a def ba pare toog na lu mu war a toog ba pare. dafa war a dem bàyyi réew mi mu bañ a jël ay yenn genre décision yi ni lii nii sinon da koy day yàq réew mi ba pare yàqal ko mu yàqalaale ñun ñi nga xam ne dañoo toppoon si ginnaawam parce que lu ne ñu koy dëgg lu ne ñu lu ne ñu ngi koy wax te loolu du dëgg du yoon moom warul jël yenn genre décision yii nii di di yàq di yàq réew mi yooyu noonu di jaxaseeg nit ñi di jaxase askan bi parce que lii mun na dem sax ba indi fii ay guerre civile wala yu mel noonu wax dëgg yàlla man man personnellement kontaanu si te man ak ñi ma àndal ñëpp am na ñeneen ñeneen ñu xam ne dañoo yore benn association bu mag bu tudd renaissance patriotique ñoom ñëpp ànduñ si décision bu Macky Sall jël dafa métti nag billaahi mais nag mënuñu si dara kon ko njiitum réew ma moom wax na ba pare instant bi ni ñun ñëpp nañ génn nekk opposition ñun ñëpp ñu bañ a farak moom waaw ñun ñëpp ñu opposé lu mu wax opposition yi ak pouvoir yi ñëpp nañ daje ñu opposé lu mu wax wax dëgg yàlla lii moom du dëgg du yoon muy jël ay décision loo xam ne reporté ay ay élection yooyu noonu yéen waa Chupa TV ah. waaw waaw noonu la demee. waaw wax nag moom moo yombul quoi xam ñun ñëpp ay sénégalais lañ. dèjà boo ndekkiwul añoo reeroo. xam nga li ma lay wax pour nga wax day jafe. te loolu noonu gis nañ ni bi fi Macky Sall nekkee ba léegi pratiquement ci la dëkk bi gënoon a dëgër. waaw avant muy ñëw dëkk bi amoon na fu mu toll quoi ñu amoon yaakaar ci moom trop. sincèrement parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ boo bëggoon nañ système bi changé. mais dafa ñëw tey système bi gën a bon. liñ doon yaakaar 10 ans ni voire plus ñoo fexé ba am moitié bi ci mom ba paré wolbeutiku mu ñëw indi ci dëkk bi lo amu fi woon bu ñëk ablay wad fi la nekkon mais ko am li nga bëgg wax da ngay wax sans problème duñ la tej wax bi may wax ni donte ndekkiwu ma añu ma reeru ma ma sax suba mun nañ ma ñëw jël ci tejma ma mais teewul damay wax dëgg parce que wax dëgg moma war en tant que julit sama dëkk dama ko bëgg. yaay dégg fii dañuy waxante dëgg rek Sénégal élève 3e jamono ñu toll ni mun diriger. kon donc ay président yuy def ay costume dem gëm ay tubaab yi nangam sangam ñu ñuy corrompre boobu ba léegi fa la ko quoi sénégalais dañ jàpp ni Macky Sall la mais Macky Sall dañ koy digal muy def ñun système boobu lañ bëgg a changer carrément parce que dañ cee sonn taay si yaa ngi dégg lu tax ma ne la élève troisième mun na koo diriger parce que dëkk bi am na or am na jamaa am na pétrole ay at a nii commencé nañ ko exploiter te yëguñu suñu bopp yaa te tey exploitation boobu noonu pour jeune bi yëg ci boppam jeune bu am 30 ans nga mun a am terrain dañu waxante dëgg pétrole may nañu loolu gaz may nañu loolu courant kenn waratu ko fay ndox kenn waratu ko fay mais Macky Sall bu mu yéegee ba léegi ci la tëj bi gën a bëri ci la chômage bi gën a bëri ci la courant bi gën a cher ci ndox bi gën a cher après moom mu bëgg ñu teewaat pour six mois au nom de quoi papa moo ko liggéey wala lan la non franchement ñun dañuy dëgg quoi. waaw wax ji nag bu dee am na ay kàddu yu ko ci xaw a blessé ak yooyu mu xam ne moom lu mu liggéey la ñun ragaluñu wax loolu yaa ngi dégg on en a plus que marre waaw yooyu noonu yëpp gars yi di wax amul benn njëriñ li am njëriñ mooy Sénégal ñun ñoo ko moom te kenn ku ci nekk boo jàppee ni yow kese moo ko rek sa moroom li mu moom moom nga moom ko boo ko moom di nga def luy yoon waaw beneen candidat ak bu munti doon nag ku fi munti ñëw tamit jël réew mi yaaram li ñuy xaar ci yow boo ko deful dañ lay daqaar nga jaar fële waaw parce que ñun liy defar réew mi lañ soxla kese nag amul leneen waaw wàllum pétrole bii nii nii nii ñu waxaale ci tuuti tamit quoi parce que nañ ci teey def ci ndànk dëkk yi amoon pétrole yëpp gis nga ay fitna lay luñ nañ ko fàtte li laay war a suuli jéem a jaayante man li ma lay wax ni dama ci am lu leer àll bi Macky Sall liggéey na fa tabax fa ay defar fa ay taleeg yooyu yëpp mais naanaam balaa tali da ngay jox nit ki mu lekk na gars yi dem bay ji am autosuffisance alimentaire bu ñu wëlbatikoo li ñuy am suñu budget ñu jéem a xool nu ñuy amee suñu matérielu pétrole buñ ko puiselee suñu bopp duñ ko bokk ak kenn te ñu koy bay jafewuñu prison yaa ngi nii fees jeunes yaa ngi nii di cag-cag di taxawaalu amuñu liggéey da ngay xëy ci entreprise liggéey fa vingt ans ñu xëy dàq la parce que état bi day corrompre entreprise bi loolu lépp kenn mënu ko wax quoi maanaam thème bi am na solo trop li laay war a suuli nag sa six mois yi ñun benn xoolal six heures de temps sax bëggatuñ ko waxu la ak six mois ñun ñoo doyal ci yow quoi lillahi wa war nga genn par la grande porte dem. bon so xolé nak askan bi Sénégal kenn mënul len satisfaire li tax kenn mënul len satisfaire mooy ñoom faruñu fenn te en plus aussi tamit so xolé jeunes yi nga xamanteni yëpp ñoo nekk ci dëkk bi di alu di wax di wax kenn amu ci 40 ñu si bëri ñu ci 40 dañuy top mbolo mi ni di dem rek mais ñi nga xamanteni ni genre ñom xamnañ li nga fi Sénégal du doxé ñooñu xam bu baax Macky Sall président li mu reporté élection yi lu bax la ndax élection yi suñ ko reporté suñ ko reporté wul man gisuma fi candidat quoi à part Amadou Ba sunu ministre bi té mom sax soo xoolee ba paré gul quoi. kenn xamul quoi si xeex bi nga wax ni ni ni si lañu xamé ay Bassirou Diomaye Faye si xeex bi si lañu xamé Ousmane Sonko si xeex bi si lañu xamé kenen ak kenen non Ousmane Sonko si xeex bi la ko nit ñi xamé ndax Ousmane Sonko so xolé and parenthèse lu ndaw rek Ousmane Sonko ñu ko xamé ci xex bi ñu ko xamé ci xex bi moy bo mu taxawé assemblée wax li nga xamanteni ni moom la nguur gi di doxé moy li mo la wax sank rek bo mu taxawé wax li nga xamanteni ni la nguur gi di doxé ci le jeune yi nga xamanteni ni ay illettré ak yena mak yo xamanteni xamuñu politique ci lañ xamé Ousmane Sonko man sama gis-gis comme ni mo la ko waxé rek président Macky Sall so xolé si décennie yi mu tok yépp mais dañuy xool rek lu mu réaliser quoi li mu réaliser bëri na man tey jii nii faruma fenn ah. mais président Macky Sall mooy sama président mooy suñu président ñun ñëpp mais soo xoolee décennies yi mu fi toog yëpp li mu liggéey macha allah. Sénégal yëpp te teñal ñuy def loo xamante ne tegu ko fenn fenn fenn fenn constitution mayu ko ko loi mayu dara mayu ko ko. ndax lan intérêt boppam ak affaire xawma ay Karim Wade Karim Wade lan lañu fi Karim Wade du sunu kan Karim Wade Karim Wade mo nangul luñ ko tek Sonko bu ko nangon genn rew mi Karim Wade ko dem sunu yon ci Karim Wade ñun rew mi lañ tal essence nit ñi sonu nañ le sénégalais à suuf surtout ñun ñi jeunesse bi man mi barké Cheikh Ahmadou Ba mo gison gal damay def kitab parce que essence amatuma avi nek Sénégal ñi sama carte sama carte d'identité ma wala ko pour moy barke alxuraanu karim ci taal ko taal ko parce que je suis pas fier d'être sénégalais aujourd'hui billahi wal kitaabi ke Seydina Mohamed parce que affaire li defa désolant en fait li dafa désolant nit ñi xaar pour élection lu comme yow élection yi libre ñaan na la transparence liberté moo amatu ci élection yi ndax xañ nga ñi sélection nga def dugal ñi bàyyi ñi dañuy nga da ngay annuler élection yi pour lan au nom de quoi Macky Sall def na yàpp respecté wuñu ñun nag amul benn respect vers moom respecté wuñu ñun ku ñu respecté wu respecté wu la bés ni ki tey du moo ko wootee président laa koy woowee Macky Sall politique ak ndëgg sërëx yaakaar naa ñoo ànd yàgg na fi loolu jiitu na suñu juddu depuis la nuit des temps élect euh, dañuy fàtte ni tamit président de la république il est dans la politique mm-hmm. moom tamit dafay politique dafa yor euh, parti di ko doxal yor son pouvoir aussi di ko défendre quant à nag report bi suñu jàppee ne dafa nekk di segg ay ay ay mbër pour xool ku muy bëree la ku mu dul bëree moi mon na ne se situe pas là wax dëgg yàlla man xalaatuma loolu parce que du moment que moom bokkul rek kon waroon na tax ne ñëpp xam ne lu leer te transparent la bëgg wax dëgg yàlla waaw di lancer jeunesse bi message bi xam nga jeunesse yaa ngi fii sonn nañ da ngeen koo xam day am plus de vingt cinq amul dara si lu mu jàpp te dañoo war a doon responsable dañoo war a am jabar dañoo war a am doom am nañ ay rax yu ñu war a jàpp am ay famille yu ñu ñuuroon suñu yaay yëpp suñu lañ yaakaar di wax Macky Sall ngal ngalaw waay Macky Sall réew jeunesse bi nan ñun ñoo la ko ñaan Macky Sall réew bàyyi ko sa mandat jeex na wàcce réew mi ñun Ousmane Sonko lañ bëgg ñun moom lañ bëgg Ousmane Sonko bu ñu doon jox sa chaque jour dërëm ñun moom lañ bëgg ñun ñoo xool ku ñu neex ñu fal ko ñun na baal suñu réew léegi nag leen mooy wax ji gaa baal réew mi gaa yëpp loolu lañ bëgg jeunesse bi sonn nañ barki Seydina Mohamed jeunesse maanaam système bi moo war a dañ parce que nekk si réew mi yoo xam ne lu circonstance yëpp am si réew mi dañoo toog di lekk seen xaalis gaa di souffrir xamañ maanaam lu ñu naan ñu ñuy bay du dundee loolu amatu ci réew mi jeunesse bay souffrir entreprise yaa ngi si réew mi da ngay dem dañ lay jël di la exploiter duñ la fay lu ko war lu ko jar quoi lay jël di la exploiter te loolu du yoon jeunesse bi sonn